ñëw fii tey maanaam fii ci chantier bi nga xam ni euh, moom mooy base de vie bu projet autoroute Mbour Fatick Kaolack mu nekk projet bu am solo président de la république maanaam lancé ko tey jii tàmbali na moo taxoon ñu ñëw pour xool maanaam avancement travaux yi and ànd fekk nag euh, maanaam les autorités de l'administration territoriale maire Thiadiaye euh, le ministre Oumar Youm teeruñu ànd ak le maire de Sandiara sëñ Gueye Diop ak l'adjoint au maire euh, bu bu bu Sessène euh, li ñu fi gis mat maanaam dal na xel de plus que yoon bi nga xam ne ci mooy corridor <coughs> Dakar ko yoon la boo xam ni bu baax ci koom-koom parce que non seulement day yokk koom-koom waaye day defar dem bi dikk bi te loolu engagement la boo xam ni président daf ko jëloon te engagement bi fu nekk nii dafa nekk réalité leneen lu ñu ci mën a wax mooy yoon fu mën di jaar dana indi ay impacté gis ngeen témoignage maire yi impacté yi macha allah ku ci nekk lu nga war a jot jot nga ko te coow amu ci wax amu ci dara amu ci au contraire dañoo kontaan ci traitement bi nga xam ni état bi defal na leen ko à travers sa projet. waaw loolu weesu weesu na su ma ko mënee wax noonu. parce que am benn programme bu ñu tuddee le programme spécial de désenclavement bu jël en charge maanaam yoon boobule dana tàmbali fi léegi ay fan yu néew euh, ci vraiment pour wane ni engagement boo xam bu ko président jëlee da koy def comme nu mu ko waxee te di ngeen gis effectivement euh, démarrage travaux yi donc amul problème à ce niveau là. économie moo ëpp importance ci loo gis moom mooy euh, waral autoroute bi ngay gis ni day yombal dem bi ak dikk bi ñu nga xam ne Sandiara dañoo am ñaari projet structurant muy zone industrielle bi zone économique spéciale ensuite agropole bi nga xam ne également xam ngeen ko dafa laaj autoroute ak euh, dem ak dikk. dafa laaj euh, lépp lu ñor foofu ñu mën koo jaay lépp lu ñu fa fabrique ñu mën gaaw a dem sur le Mali wa war a dem sur le Sénégal ñaareel bi nga xam ne dafa am importance mooy impact social bi maanaam suñu waxee ne juróomi junni emploi lay doon sur lax pendant cinq yi commune bu ci nekk aussi wax nañ ko dina am lu tolloog te ñaari téeméeri euh, emploi yooyu dafa am importance ci contexte bi nga xam ne xale yi amoo amuñu xëy état def yëpp pour ñu am xëy ñetteel bi mooy aussi euh, li nga xam ne mooy emploi bi su autoroute bi demee ba pare muy exploitation bi le DG wax na ko léegi Ageroute nee na dina am deux cent cinquante emplois yoo xam ne ñoom ñooy toog maintenant exploiter autoroute bi yooyu soo amee nag pour ñun les maires day nekk benn euh, njëriñ boo xam ne dañ ko am pour suñu jeunes yi ak suñu ñi nga xam ñoo ci waaye du li nga xam ne mooy mooy dayu bi dëgg-dëgg pour ñun comme day yokk valeur suuf si dañu commence ñun xalaat déjà à un plan d'urbanisme de détail un plan d'occupation des sols boo xam ne tout au long de l'autoroute dañu bëgg def ay établissement économique ay banque ay zone euh, de travail ay zone d'habitation ay HLM loolu moo tax mu nekk projet boo xam ne euh, ci wàllu plan Sandiara émergent day day appuyer bu baax a baax a baax li nga xam moom la ñu bëgg a def. waaw xam nga ñun ci turu population yi la ñuy wax donc euh, li ñuy njëkk a wax mooy sant yàlla sant état Sénégal sant ministre bi. Euh, feeñal sunu mbégte ci euh, tey recevoir ko fii dans le cadre euh, visite chantier bi muy def chantier bu am solo bu bu bu jéggi dayoo sax nga xam ne ci chantier yi gën a mag ci plan Sénégal émergent la bokk mooy autoroute Mbour Fatick Kaolack ah chantier bi nag boo gisee tey rek base vie bi di nga xam dimension chantier bi ni mu nar a toll ci ci liggéey ci ci dajale ay mbooloo ci ci impact ci économie bi ci création d'emploi ak ak yu demee noonu li ñuy gën rafetlu nag fii au de l'importance du chantier ci plan Sénégal émergent mooy ni ñu defaree tey projet bi dañ ko tëggee ba nga xam ne projet bi amul coow population yi accepté nañ projet bi euh, ñi nga xam ne projet bi laal na seen kër indemniser nañu leen euh, ci indemnisation boo xam ne jàpp nañu ne ñëpp am nañ satisfaction parce que c'est dans le cadre de coalition euh, conciliation la ñu def boo xam ne ñëpp gis nañ ci seen bopp ñun nag fii ci commune bi ñu yokk ci leneen mooy pour gunge dynamique d'apaisement social boobu dañuy décider créer benn quartier Euh, benn site de recasement nga xam ne foofu la ñuy yóbbu ñi nga xam ne seen kër jël nañ ko donc loolu nga xam ne tout site lu am solo la ah, ñu ngi rafetlu projet bi di rafetlu liggéey bi di am yaakaar effectivement comme ni ñu ko waxee euh, projet bi dina am ay jeexital yu bare bare ci dëkk bi d'abord xam nga projet autoroute fu mu nekk dafay yombal dem bi ak dikk bi donc dafay am tra euh, fluidité ci trafic bi mais aussi fu mu nekk da ngay gis ne entreprise yi industrielles yi dañ fay bëgg di jege parce que dafay yokk euh, euh, yokk proximité bi ak attractivité bi mais aussi xam nañu ne autoroute aussi dafay dafay urbaniser bu baax day gën a urbaniser bu baax dëkk yi yombal habitat bi ba nga xam ne habitat bi aussi dafay accessible par rapport au lieu de travail donc loolu yëpp gis nañ ko ci ay njëriñ moo tax population yi ensemble vraiment saluer nañu projet bi di ñaan yàlla nag ñu àggale ko ci jàmm. monsieur Paul Sène absent il est il est à Dakar euh, li ma bëggoon wax rek mooy euh, euh, maanaam gërëm autorités yi ci gaawaay bi nga xam ni population yi nga xam ni dañoo jël seen suuf ak seen kër yi fay nañ ko fay nañ leen ko rapidement. bon beneen aspect bi mooy lan li ñuy aussi ñaan aussi mooy emploi yi nga xam ci ñoo am ci communes yi. bu ñu fàtte parce que euh, am emploi boo ci am nañ ko niveau bu bu ñu bëgg aussi am nañ ko donc euh, on bon peut-être que du ñu mën a jël ñëpp mais nañu fexe ba quand jël en compte euh, nos nos nos nos et puis ñu xam ah quelle autorité ak qui s'adresser par rapport à ça quand il faut daal